mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen dalal jàmm ci euh, plateau l'invité de la mi-journée fii ci euh, Walf euh, TV tey ñi ngi am mbégte di dalal Aminata Sall moom mooy chargé de l'administration bu parti bii di MPR MPR nag mooy En Marche pour la Renaissance du Sénégal Aminata Sall maa ngi lay nuyu. maa ngi lay maa ngi lay fay Pierre Edouard Faye. di la gërëm di la gërëm aussi di la remercier ci invitation bi. Euh, di nuyu aussi téléspectateurs yi nga xamante ni ñu ngi suivre émission bi tey. ñu ngi lay gërëm yow tamit li nga ñëw wu si sunu invitation. Mhm. dañuy reprocher souvent que nii du ñu invité jigéen lu bëri. mais yàlla xam na ni dañuy essayer ba sonn waaye dañul am ñuy nangoo ñëw donc yow nga nangoo ñëw euh, relever défi boobu. Mm. lan moo waral sax jigéen yi yéen ngeen yi xaw a am kersa wala ragal. di mm-hmm. dem ci plateau yi di waxtaan ci di xew ci réew mi ak ci politique bi. mën naa ne du ragal. xëy na dañu ñoo joxul chance bi nga xamante ne tey jii leen mën taxaw exprimer wu. xëy na aussi confiance bi nga xamante ne góor ñi war nañ ñu ko jox ñun jigéen ñi xëy na moo fi manqué tamit moo tax. léegi ban place yéen ngeen occupé ci parti politique yi yéen jigéen ñi ak ndaw yi. ñi ngi ci. Mhm. Euh, jigéen ñi ñi ngi ñi ngi ci parti politique yi bu baax ndax ñi tamit ñi ngi ci mais xëy na dañoo nekkul au devant de la scène mais ñi ngi ci ginnaaw. mais loolu est-ce que du problème le fait que euh, de responsabilité ci parti yi Euh, problème la comme même parce que tey jii euh, c'est comme même dommage bu dee ñi góor ñi surtout sénégalais yi dañoo xalaat ni jigéen tey jam tey jii place am nekkul ci kanam wala dafa war a nekk ci ginnaaw wala dafa am ñu ko war a jiite tey jii. Mhm. mais est-ce que au lieu de ngeen di toog rek di réclamer ay ay place est-ce que du formation ngeen war a njëkk jiital pour compétence d'abord. Ah. gis nga jigéen ñi ak góor ñi. moo hmm. wax la dara Sénégal tey ñun ñëpp ñoo bokk formation te mën na am sax ñun jigéen ñi ñun ñoo leen mën. Hmm. ci ci ci ci ci ci fànn yu bëri yu bëri euh, voilà donc déjà xam nga nee nañ toowu jigéen ñi ñoo ëpp toowu góor ñi donc ce qui veut dire que tey jii bu ñu waxee euh, euh, nu ñu koy waxee. scolarisation taux scolarisation bu ñu ko waxee ça veut dire si jigéen ñi la la la war a ëppee donc bu dee formé formation ak compétence jamono ji may wax ak yow je me dis jigéen ñi ñi ngi seen place xëy nag mooy li ma la waxoon confiance lan leen joxut tey jii bu war leen mën jiital. Mm-hmm. foofu foofu foofu la amee. ci mentalité sénégalaise. ci mentalité mais mentalité dafa war a évoluer quand même. mais bien sûr dafa war a évoluer tey war nañ toog xalaat sax naan di waa waxi présidente. Sénégal mais du doon léegi daal. ah gëmoo ko. non non gëmoo ko du doon léegi. Hmm. non ñu am président de la république. non non bu jigéen. déedéet déedéet. Hmm. du amagum léegi. si mentalité la ba tey. oui wala ci suñu culture la wala boog. xam nga ah. xam nga tey ji culture bi moom mooy moom mooy influencer mentalité bi ba tey ji ñu am nu ñu nu ñu xalaatee ñun dañoo bëggul génn suñu zone de confort mais xëy na tey jii buñ buñ ci génnoon dinañ mën a par exemple concevoir jigéen mu nekk présidente mais pour le moment nii nii nii non ah, pour def constat bi de manière impuissante wala war a yëngal bouger les lignes. ñi ngi yëngal ñi ngi fépp tey jii fan nga mën a dugg te gisoo jigéen. Mm-hmm. amul ñi ngi fépp mooy li ma la wax rek confiance bi mooy moo des mais dina ñëw je pense que incha allah dina ñëw parce que euh, les femmes ici ils sont elles sont battantes te ñi ngi def li ñu mën. pour euh, jël seen place. globalement lan mooy sa xalaat ci euh, politique bi nga xam ni moom la ñu jagleel jigéen ñi fii ci Sénégal. Euh, politique bi ñu jagleel jigéen ñi maanaam. jigéen ñi est-ce que place bi lay bi bi bi war. bi ñu war a jox leen ko ci dans les différentes politiques publiques souvent bu ñu nee jigéen rek en général pour ñëw jox leen ay tissu la ñuy sol ay t-shirt pour ñëw animer ay meeting est-ce que waruñu dem au-delà de de ça. mais bien sûr war nañ dem au-delà mooy li la wax rek jigéen ñi am na tey ji euh, seen ginnaaw. Euh, yenu na danoo yenu lu bari jigéen jigéen jigéen dafa am importance te tey ji euh, xëy na jigéen yi ñuy xep ci parti wala ci euh, ci yenn sociétés yi buñ leen joxoon seen place teg leen fan leen war a teg xëy na dina demee neneen hmm. mhm. parce que tey ji comme on ji rek lépp loo am ci Dakar tey ji lépp lu fi am loxol jigéen mi ngi ci biir loxol jigéen génnu si te booy seetloo booy jëf à chaque fois boo laajee jigéen muy sa soxna wala muy sa yaay wala muy keneen tey ji di nga ci beneen bët ngay am ci ci ci ci ci ci ci li ngay ma bët mm-hmm. parti bi nga bokk est-ce que jox nañu cër yi jigéen ñi war a am vraiment ci seen parti mais bien sûr bien sûr ñi ngi ci ñi ngi ci bu baax man maa ngi ni toog je me dis jox nañ ma confiance boo xamante ne tey ji bàyyi nañ ma ñëw plateau déjà ensuite euh, ñun ñu def mooy dañuy wër euh, Dakar ak sous-région yi tey ji di euh, Euh, di former jigéen ñi lu bari waaw pour mën ñu mën a entreprendre ñu mën a mënal seen bopp ñu mën a dem donc waaw ñu ngi xalaat jigéen jigéen ñi bu baax. léegi seen parti di euh, MPR fan lañ ko mën a positionner pouvoir wala opposition wala boog yéen da naan troisième voie ngeen. Euh, ñun opposition lañu clairement opposition lañu waaw tey jii dañoo taxawaay dañoo taxaw taxawaayu opposition. parce que tey jii gis nañ pouvoir bi ni muy doxalee gis nañ pouvoir lu fi nekk doyatuñu moo tax ñu ne ñun ay oppos ay ay opposition. lan la pouvoir def loo xam ne doyu leen ba tax ngeen jël position ni yéen da ngeen taxaw pour combattre ko. déjà euh, situation bi dëkk bi nekk actuellement boo xoolee dafa bëri problème te je me warut. parce que ñun xamuñu xamuñu genre problème yii nii donc déjà mal mën nañ ko wax mal gouvernance moo waral lu bari te tey jii moo tax ñun ñëpp ñu taxaw temm ne pouvoir bi daf foog mu jóge tey Sénégal réew bu ndaw la am lu mhm. toll si 17 millions d'habitants mhm. euh, am lu ëpp 250 partis est-ce que mhm. jaadu na yéen ngeen ñëw di yokkaat ci limu parti bu am solo boobu waaw parce que 250 partis ci Sénégal ëppul euh, ëppul hmm? ëpp na euh, mais vitalité démocratique la wala boog pëccëxoo la du pëccëxoo sax vitalité démocratique pëj ku nekk ak sa yéene xam nga ku nekk ak sa yéene 250 parties yi nga wax man su ma xoolee du ko sax yëg doo ko yëg n'est-ce parce que euh, boo xoolee 5 wala dix lañ ci tudd wala wala wala 10 maximum si si moom la ñoom la tudd ñoo nekk au devant de la scène ñoom ñooy def li nga xamante ni ñoom ñooy def différence ñoom ñooy génn ñoom ñooy wax parce que boo xoolee le reste aussi c'est artiste boobu si yéen si ngeen bokk ñun ñun kay bokkoon si ñun ñi ngi def lu ñu mën ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi déjà euh, ñi ngi juddu 2020 déjà dem nañ législative déjà ñi ngi wër Ndakaaru suñuy bureau ñi ngi fépp on a déjà ci 14 régions yi rek am na 12 12 bureaux yi nga xamante c'est déjà installé te boo xoolee tey jii tey jii may wax ak yow rek ñu ngi nii dañuy dem Kaolack dañuy def foofu bureau dimanche incha allah dañuy dem euh, tuba pour installer foofu ay cellules et incha allah aussi dañuy dem aux Parcelles Assainies pour wax ak parcelles waay yi et def foofu ay ay ay set setal donc ñun ñu ngi def suñu bonhomme de de de et franchement je me dis MPR moom ñu ngi koy tudd ñu ngi koy commencé tudd daan daan même si euh, bi mu juddoo yàggul ñu ngi ñu ngi ñu ngi wut suñu yoon. waaw ba ñu njëkk dégg ñuy tudd seen parti mooy si législative yi weesu. dëgg la euh, MPR ngeen àndoon ak euh, Pape Djibril Fall. Mm-hmm. mais finalement dafa da ngeen mujjee tàggatoo. Mm-hmm. da ngeen mujjee tàggoo. Mm-hmm. lan lan moo xewoon ci diggante bi. no xam nga coalition la rek coalition la woon rek du woon benn parti déjà coalition la woon dañoo pare coalition bi jeex ku ne dem sa yoon. Mm-hmm. amul mero amul dara. Euh, xaw na am waaw parce que seen la toog fii wax na li gën a kii dëgg la c'est am na am na am na tuuti lëj-lëj bu amoon ci diggante bi mm-hmm. boo xamante ni je me Sénégal ñëpp teg na seen seen seen seen bët parce que tey jii sunu dirigeant dafa demee ak transparence mais c'était pas le cas de tout le monde du woon ñëpp ñoo ñoo ñoo ñoo ñëwee noonu mais ñu koy sant yàlla rek euh, et puis voilà on est passé à autre chose te xam ni beneen teen tamit euh, du ñu doxalee noonu dinañ gën a xool ci kan la ñuy dugg. réew mi fu mu toll nag lan moo si xalaatu euh, sa parti bi tey sénégalais yi ku ko wax ku ko waxul yëpp yaa ngi tiit. dëgg ndax xamuñu fan la ñu jëm. un benn at moo des ci élection yi. Mhm. waaye kenn xamagul sa kuy candidat ak warul nekk candidat bi mi ngi ci réew mi et tout lan moo si seen position yéen. suñu position moom lenn la muy euh, pouvoir warul téye kenn warul tere kenn mu nekk candidat mu mu mu mu mu déposer candidature am pour nekk président parce que xam nga loolu day dafay porter atteinte démocratie Sénégal day tax mu perte vitesse te loolu waruñu ñun démocratie yi boo xoolee moom la ñuy wax nous sommes un pays des démocrates donc pouvoir bu xoolee ci loolu rek war na mën a bàyyi lu bari ndax jaru ko jaru ko. kon dafa am volonté de la part du pouvoir. muy mhm. écarter ñenn ñi ci élection yi. exactement loolu moo moo indi coow li. moo indi coow li. léegi mhm. mhm. coow li nag lu koy lu koy régler. ah lu koy régler mooy euh, pouvoir bi mu bàyyi ñi nga xamante ni dañoo bëgg nekk président ku nekk tenter sa chance. ku nekk xool parce que quoi qu'on puisse dire population bi moom mooy fal ki ko neex donc nan bàyyi population bi ñu ñu def seen choix ah sans problème sans indi quiproquo sans indi ay détails moo gën. ay propre parce que tey jii boo xoolee fu mu nar a jëm mooy kenn ñaanu ko yàlla mais coup taal la ci ci euh, armée bi bu nangoo dëkk bi du baax te xamuñu loolu pour éviter loolu nag pouvoir bi je me dis bu dee que ñoom ñoo gën a mat ñoom ñoo ñoom ñoo njiitu réew mi ñoom ñoo war a gën a bëgg euh, dëkk bi nekk ci jàmm donc ñoom ñoo war a reculer bàyyi gars yi ku ne jàll ku ne jël sa xool li la population bi may nga jël beneen question boo xam ne tamit euh, mën a nekk source de conflit et de mhm. tension mooy question troisième mandat bi mhm. ñu ngi jiñ président Macky Sall que ni dafa bëgg troisième mandat en tout cas ñi mu àndal moom ñoom nëbbatuñu ko ñoom nee nañ troisième mandat par force lay lay def mhm. lan moo si seen seen position yéen bon xam nga président moo toogoon ne moom du jëlaat du fu faluwaat ñetti yoon te fu mu nekk nii wax nga ko ay ay ay ñoñoom nee nañ dafay falu ba tey ñu ne garaawul mais gis nga bu décider def candidature candidature mën na am troisième candidature mën na na mën na mën na nekk mais gis nga troisième mandat du am mooy li ma la waxoon rek tantôt population moom mooy fal te bu dee population bi ma gis nekk ci métit gii hmm, xaalis amul ja euh, liggéey amul euh, lekk añ reer ndékki am na ñu mu jafe donc bu dee ñun ñi ngi dund loolu dëgg-dëgg gëw ma ni ñun dina sànnilaat carte ki nga xamante ji ci nguuram la ñuy dund loolu. yaakaar nga ni président Macky Sall dina forcer pour troisième Euh, mandat ba pare di perte élection. dina perte élection yi. Hmm, ba nga gis bu dee population mooy fal Macky Sall du faluwaat incha allah. léegi yow lan ngay wax est-ce que da nga naan soyons des républicains conseil constitutionnel moom moo war a valider candidature nañ ko bàyyi mu déposer bu ko conseil constitutionnel valider mu nekk candidat wala boog da nga naan si beneen wàll bi ah, conseil constitutionnel moom de toute façon lu lu exécutif bi indi rek moom da koy valider donc ñun dañoo war a xeex pour sax mu bañ sax déposer far. Euh, boo xoolee da ngay xaw a euh, danga naan waaw da nga naan déedéet ndax boo nee boo nee waaw euh, dañoo war a xeex effectivement parce que danga naan tey jii démocratie la ñu wax suñu dëkk ñun ñoo ko moom constitution bi kenn waru koo laal donc xam nga loolu yëpp boo ko xalaatee danga naan dañoo war a xeex mais aussi beneen fànn bi mooy boo xalaatee ne ñun euh, dëkk la boo xamante ni mooy li ma la wax. tàmmuñu yenn yi tàmmuñu gis yenn yi tàmmuñu dund yenn yi déjà problème bi mu mujj am mooy euh, moor yi déjà amoon au au au mois de mars déjà c'était affaire la bi nga xamante ni dafa dafa choqué woon sénégalais yi donc je me dis on ne veut plus voir ça bëggatuñ ko gis donc juste boo xalaatee loolu danga naan nañ bàyyi euh, euh, gars yi def seen liggéey moo gën moo gën te sachant que à la fin population bi moom mooy voté te population bi du voté pour pouvoir bi sa candidat euh, yéen a ngi am candidat yéen. waaw am nañu candidat suñu président. Amidou Thiaw moom la ñu jiital si si si si si lu nekk mais comme li ma la wax rek nous sommes euh, benn parti bi nga xamante ni bi ñu juddoo yàggul mais euh, tey jii bu ñu population bi joxe bopp. à travers parrainage yi ba ñu gis ni jox nañu bopp pourquoi pas ñu ñu ñu ñu ñu ñu. beneen problème la parrainage est-ce que di ngeen ko jàll. yu mag yoo xam ni mu jéew ñu jàll parrainage. dëgg la mooy li ma la wax rek bu ñu population bi joxee bopp. ñu dem bu ñu joxul bopp itam ñu toog defaruwaat rek ba tey jii ñu gis ni jox nañu assez de confiance pour tey jii ñu mën a nekk ay ñu mën a pos euh, déposer suñu candidature nekk nekk président. loi parrainage boobu. Mm-hmm. Euh, cour de justice de la CEDEAO dafa demander Sénégal ñu supprimer ko waaye Sénégal ñoom dañoo bañ lan moo ci sa position est danga jàpp nii Euh, dañoo def war a def ay filtre pour affaire bañ a am pëccxoo mhm. war a bokk dañoo war a ouvrir le jeu ku bëgg nekk candidat comme ni ñu ko waxee jàkka jàkk noonu ku mën a nodd rek nga ñëw nodd euh, man je pense que lu baax la mooy li nga wax rek pour man dafa war a am filtre warul nekk euh, warul nekk accessible à tout le monde et puis dina tax sax te jii yenn parti yu ndaw yi ñu mën a natt seen bopp mën a préparer wu mën a defaruwaat pour mën a nekk au devant de la scène et xëy nekk président pour man warul nekk lu yomb si sa xalaat la moo war a nekk atu c'est euh, sa candidat yow bu dee am ngeen di candidat euh, atuwam pour man tey jii mooy euh, le fait que c'est pas un politicien moom nekkul politicien waaw ouais, donc c'est c'est c'est c'est un monsieur bi nga xamante ni dafa mës a nekk dans le privé mënoon na toog ah ci rukkam da eggali liggéeyam suturloo li ko yàlla may daan ne ci laay yem mais gis na situation dëkk bi nu mu mel mu ne xaaral ma jug jàppale population bi ñu génn ci lu ñu nekk dimbali xëy na tamit ñu développé waale Sénégal. nee nga euh, même président Macky Sall bu forcé woon euh, candidature am du ne am troisième mandat mais barki démb gis nga li mu mobiliser Thiès <laughs> loolu est-ce que tiitalu leen. non du ñu tiital du ñu tiital déjà moom mi ngi jóg ne dafay def euh, nu mu koy waxee. tournée économique mm-hmm. donc yow li nga wax rek wane na ni c'est pas un tournée du benn tournée économique tournée politique la. donc dafay instant yi dafay def campagne déguisée et je gis nga fond boobu yëpp ñu ñu ñu ñu ñu dégagé di di ko di ko di ko di ko pour juste pour recevoir président xajoon na feneen soxla yaa ngi fi ci dëkk bi dette yaa ngi fi ci dëkk bi problème yaa ngi fi ci dëkk bi donc je me waroon na am waroon na am beneen taxawaay bu dul dem di campagne yi jël xaalis di ko yàq alors que on a d'autres te même moment bi mu nekk Thiès ñi ngi tere par exemple Pastef daf seen meeting fële ca Mbacké mais bettul kenn bettul ku mu bett kenn parce que disons la Sonko dafa toj euh, Kër Massar euh, dafa wane ni sénégalais dañ ko dañ ko dañ ko jox bopp dafa wane ni tey jii euh, àdduna dañ ko wuy si donc bu ñu gisee loolu lii mënuñoo bett est-ce que jonction am na possibilité de jonction entre seen parti ak ay Pastef ak yeneen parti yi fi nekk nekk ci opposition bi en en direction de de la présidentielle. dëgg la gis nga mooy li ma lay wax ñun lan moo taxa tax jug li ñu njëkk tax a jug lan la génne population bi ci situation bii ñu nekk. maanaam développer Sénégal ñun tey jii bu ñu toogoon gis nga xamante ni yàlla def suñu parrainage amuñu ko par exemple on ne peut pas être. Euh, candidat candidat bu ñu demoon ba tey jii ñu am tuuti euh, pourquoi pas ñu allié wu ak keneen ki nga xamante ni gis nañ ni moom mi bu ñu ko bu ñu allié woo ak moom kat dina dina génne Sénégal ci li mu nekk mais pourquoi pas parce que ñun loolu moo ñu ñor. waaw tey euh, ñi ngi ci euh, un an de la présidentielle mën nañu ne sax peut-être c'est l'heure du bilan. Mhm. Euh, tey boo def bilan président Macky Sall lan nga ñuy wax. man su ma defee bilan bi dama naan dafa dafa négatif. Mm. dafa négatif parce que d'accord def na liggéey bu rafet. ci wàll infrastructure mais comme ñu koy waxee du tale bi la ñuy dundee tey jii du du du du gravier bi moom la ñuy dundee. donc infrastructure aussi lu am solo la si réew. am na solo bien suir moom laa lay wax donc loolu dañ koy saluer kenn du ne liggéeyul de liggéey na Macky Sall liggéey na bu baax mais xëy na dafa des lu bari te amoon na. temps bi yëpp bu mu fi toog waroon na mën def plus santé baa ngi fi dafa sooxe éducation bi dafa sooxe emploi des jeunes dafa sooxe tey jii agriculture bi accompagnement bi dafa sooxe ak yeneen ak yeneen donc infrastructure bi dañ ko ciy saluer di ko ci remercier amul benn problème il a très bien fait mais li ci des moo ëpp moo tax ma ne bilan bi dafa négatif. bilan du rek euh, matériel dafa am aussi bilan immatériel. mooy état de droit ak démocratie. Mhm. gouvernance mhm. ci côté boobu yow ban note nga ko si jox loo si xalaat. li ma ci xalaat mooy déjà ma ne ma la wax euh, démocratie Sénégal fu mu jëm nii mi ngi fa mi ngi perte vitesse bu doon daw 100 léegi mi ngi daw quarante donc ci lépp ci nguuram donc loolu rek war na la wan ni tey jii yëf yi doxul baaxul moo tax ñun ñëpp ñu jug pëcc xoone daf fiy jóge Euh, côté gouvernance rapport cour des comptes a ngi fii moom joxe na assurance que nii ñu si takk yëpp dinañ leen sanctionner est-ce que am ngeen crédit jox ngeen crédit yi loolu mu wax euh, ñi ngi toog di xaar parce que boo xoolee li fi daan am mooy lépp lu takk ci nguur gi muy problème du dañ koy dugal ci suuf table bi du jëm kaw comme nag nee nee na moom lii dañ koy régler dañuy toog di seetaan xaar ko mu régler ko parce que daf ko war a regle parce que du lu ndaw parce qu'on parle de milliards on parle de de de de, de neuf ministères incriminés bu loolu weesoo tamit ñun MPR par rapport ak situation bi li ñu def mooy dañuy def ay tournée nationale ak benn concept muy goxil suñuy milliards def ay manifestation pour euh, wan euh, askan wi ne leen seen xel dañ ko di ngeen ko war a bàyyi ci problème bi am du lu ndaw lu rëy la bu loolu weesoo aussi ñi ngi incité aussi. Euh, Euh, euh, Cour des comptes ñu génnee par rapport ak gestion du Sénégal euh, yeneen rapport yi par rapport ak gestion bi de 2018